xam nañ ne mi ngi ci kem kàttanam di ci di ci def di gëm boroomam di gëm ak sëriñ bi di góorgóorlu bu baax itam suñ suñ diggante gannaaw jëfandikoo suñu di jëfandikoo ak taalibe ñu góorgóorlu nag ci makaarimu axlaaq suñu diggante jikko yu baax yi ñu góorgóorlu bu baax sama kéem kàttan di ko doxale suñu diggante te yàlla rek tax ñu toog loolu rek moo moo fi bàyyi loolu rek ci lañ war nekk suñu kéem kàttan rek suñu moom gën a woyof ci ñun ñu gën koo gën cee gën caa yor suñu pëstéef gën caa rafetu suñu yéene gën caa rafetu suñu jëf suñu kéem kàttan loolu rek moo nu fi bàyyi alhamdulilah rabbil alamin moo ngi sant ñëpp góorgóorlu ci loolu rek góorgóorlu ci loolu tabaraka allahu taw fexe sëñ bi yéeg na ci wàll yëpp moo ñuy gàttanu moo ñuy wàmmut ñu ñu gunge eh, lu gën ci rafet jot bu baax ci suñu bopp dana am xel mu dal bu baax a baax a baax suñu bopp góorgóorlu nag bu baax a baax rek suñu kem kàttan bu ñu xeeb dara la ci lu baax waaye bu ñu xeeb dara la ci sawar léegi lépp lu baax mais suñu ittee lépp lu lu a ko daw suñu xëlu loolu ngi sant ñëpp nañ taxawaay yi tabaarakallaahu yëpp rafet nag ak cant rek moo ci war a ak xel mu dal ak soññ nag gën a soññ rek suñu gën nekk ci loolu rek sax ca dàkk suñu kéem kàttan teel rek tax ñu ko def ak njukkaliku Sëriñ Tuubaa ñu ñu ñu koy liggéeyale jërë ngeen jëf